ak yërmande yàlla ak ak njëggalam mbokk yi mu ngi nekk ci sunu jotaayal yóbbulum ndaw ñi jotaayal yóbbulum ndaw ñi nag di jotaayal xam-xam ak fàttalikonte ci sunu wàllu diine ñu nekkoon ci téere bi ñuy wax jawharun nafis muy téere bu am solo bu làmboo njariñ yu baree bari suñu bàyyee xel suñu jataay bi mu juuj ñu ngi doon jàngale sàrti julli yi ak yi aju ci sàrt julli yépp kon ñu fas yéene bi nag ci suñu jataay bi nga xam ci dafay jàngale lan mooy faratay julli ak faratay julli yan la ak yan ci ab lim ak faratay julli ñaata la bismillah faslun fi faraidi salaati faslun lii ab bunt la fii faraidi salaati ci faratay julli addu faraidi salaati limu faratay julli yoxrafu def na ko xam laakin na masuyuux waaye sëriñ sa iqtalafu wute nañ fiihi ci moom kon li muy wax nag mooy faratay julli lu ñu ràññee la maanaam lu xam la waaye nag moom farataay julli ci boppam am nañu ay wuute ca boroom xam-xam yi ci limu farataay julli moo tax mu ne wa bax duhum lenn ci ñoom zakara tudd na xamsata asar fukk ak juróom faridatan ci ay farata wal bax du ñenn ña sittata xasar tudd fukk ak juróom benn mu ne kon nag faratay julli yooyee ñenn ña dañoo lim ne fukk la ak juróom am ñu lim ne fukk la ak juróom benn laakin nama waaye nag zakara tudd na al aqdari wa abdurahman al aqdari aati dikke na ca moom li yaxfaza ngir mu wàcc asabiyu gone ya kon nag sagam am na ñu tudd fukk ak juróom benn waaye moom sëriñ bi dafa jël ci abdurrahman al axdari yu mu andi mu andi ko ci téere bi te moom la mu andi ci ab lim mooy fukk ak ñett ñeent kon moom la sëriñ bi andi tënk ko ngir nga xam ne gone gu nekk dina ko mën a mokkal jàpp ko ràññee ko loolu am solo la awwaluha aji njëkk ja an na mooy sunu yéene al muhayyana jadi juñu ràññee su bi summata takbiratuhu topp kàbbar ba al mubayyana baji bu ñuy biral kon ba njëkk ca farataay julliya mooy yéene yéene nag ci ab xol lañ koy fas waaye nag waa ñoo xam te ni seen yéene dañuy fas yéene ba ca xol waaye day mel ni dañuy sikk sàkk ba xam ne yéene nañ wala yéene wuñ nga xam ne ñoom seen yéene gi ñuy yéene ci seen xol kat du doy ci ñoom ndax dañuy sikki saaka ba xam yéen ni wala yéen ni bu boobaa nag mu nees na koo sax mel ni ku ko tudd ci sa làmmiñ ku nga dëgëral yéene jooju waaye li ci ëpp sol daal mooy yéene moom ci xol lañ koy def te moom lu ci ëpp jullit bi bu jógee ba décidé maanaam jóg ba fas yéene jëm ci benn mbir rek day xool ne yéene ja dugg na kon def dara te yéene duggut lu jafe la summa takbiratuhu topp kàbbar ba nag mooy kàbbaru armal ba mooy kàbbar bu njëkk ba kàbbar bi nga xam ne da nga yëkkati say loxo ba ci say nopp wax allahu akbar kàbbar boobee mooy kàbbaru armal mooy kabar bu njëkk ba kon mooy ñaareelu salata yi wa misluha bokk na ci ak kemam fatihatun fatiha summal qiyaam topp taxawaay ba li ajli haatayni ngir ñaar kama nassa ni ko mu ko yaxalee al imam imam bokk na ci kon farata ya jàng fatiha ak taxawaay jàng fatiha booy jàng fatiha fatiha bi boo koy jàng da ngay taxaw kon jàng gi ngay jàng fatiha bi farata taxaw gi ngay taxaw di jàng fatiha farata la kon mënoo toog di jàng fatiha bi nga sëgg di jàng fatiha bi kon faaw da taxaw jàng ko ngir farata yi mat wax dut ak ngay lim rokoan rokon ba summa rafxan topp yëkkatiku minhu ca rokon ba was jut ak sujjóot xalal jëbhati ca jëba war fax ak yëkkatiku min minhu ca sujjóot ba kon tamit bokk na ci farata ya nga lim rokon ba rokon ya nag fi nga ko waxee mooy boo sëggee jàpp sa ñaari loxo ci sa bëti oom waaw nga xam ne sa ñaari loxo léegi jàpp nga sa bëti oom sëgg loolu mooy rukon kon loolu farata yi la bokk ak sigi yi ngay sigi ci rukon ba taxaw jonn farata yi la bokk ak sujjóot bi ngay sujjóot teg sa jë suuf farata la ak jóg bi ngay jógaat ci sujjóot bi toog jonn farata la waxudda ak ngay lim min haa ca ñoom ixtidaalan yamoo wakasa ni ko noonu xuddut tamaaniya limu cër ya daluk cër yi ah uqisa jàppeef na ko xan hum bokk na ci ñoom kon bokk na ci faratay ba tey yamoo mooy nga yamane si cër yi bañ di ko yëgdala ka aw fu nekk cër yi nekk cër yu jub xocc yem bu penk bokk na ci faratay dal nag mooy nga fexe ba boo sujjootee nga ne dal ba dal nga xam ne di nga dal ab diir ba sa cër yi yëpp dal nga door a siggi boo siggiwaatee ba taxaw nga dal door a dem rokon door dem sujjóot bari na ñoo xam ni kon ñu ngi bàyyi farata ndax am na ñu bari ñoo xam te ni bu ñu sujjóotee ci ab sujjóot cëcceen gi ci suuf balaa ñoo siggi bay toog dañuy siggi rek yëkkati seen bopp sëggaat kon boobaa julli day mel ni bàyyi nga farata boo ko defee ñaar yoon muy def bàyyi nga farata boo ko defee ci ràkk yëpp kon day mel ni julli gi baaxut ndax bàyyi nga ay farata yu bari bu dee tamit rukon mooy jàpp say oom bari na ñoo xam te ni bi julli bu ñu jàppee seeni oom daanaka duñ siggi dañuy yëgal yëngal seen bopp rek dem sujjóot te kon bu boobaa bàyyi nga farata ndax danga war a siggi ba taxaw jon ba say cër yi dal moo tax mu wax dal ga kon lépp loo ñuy def dangaa war a taxaw foofu ba sa cër yëpp dal nga gaaw a def la boo sujjóotee nga taxaw ba sa cër dal boo toogee nga taxaw ba sa cër dal boo rokoxee nga taxaw ba sa cër dal boo siggee ci rokoxo ba nga taxaw ba say cër dal nga door a defaat leneen kon loolu ci farata yi la kon loolu lu jar a bàyyi xel kon julli dafa laaj ak dal ak teey mu ne bu naa ak sunu toftale bay na fara li ci diggante farata yi ak sëlmal ba julusuhu ak toogaayam ba min al li tukkee ca al ilaa kum ja yaa xulaam yow ngóor sa kon bokk na ci farata ya toftale toftale farata ya bu ñu toftale farata yi nag mooy boo kàbbaree boo yéenee kàbbar jàng faatiha ak saar jàng faatiha ak saar rukkoo comme noonu di ko def par benn benn comme niñ ko waxee bam mu jeex kon tey ci misaal boo ñëwoon kàbbar rek daal di sëlmal wala dara nga xam ne da nga koo safaane farata bii ngay jël xool bala neex nga teg ko ci déedéet kon kenn bu ko jaxase kon farata far farata ngay jël da jël ba njëkk teg ci ba ca topp ko ba mu jeex kon loolu ca farata yi la bokk kon par benn ngay benn jël toftale ko ba mu jeex farata par farata ba jeex nañ ko waxee ba ba jeex ak toogaayu sëlmal ba bokk na ci farata yi boo toogee ci sëlmal bi nga toog taayam ba ne assalaamu aleykum nga tàmbalee ci as alga ba ci kum ga moom la wax li tàmbalee ci alga ba ci kum ga mooy assalaamu aleykum toogaay boobu nga toog di wax loolu toogaay ba faata wax bi ngay wax assalaamu aleykum faata kon ci misaal nit ki bu yàkkamti woon julli ba ci yàgg mu taayee yàkkamti bu jóg taxaw ne assalaamu aleykum bu boobaa julli ga yàqu na kon faw da ngay toog boo wax assalaamu aleykum boo xasee wax assalaamu aleykum julli ga dog na maanaam julli ga foofu la moo xam ñaar ñaareel ngay wax moo xam ñetteel waaye loolu rek moo lay génn julli gi kon loolu moo farata mooy assalaamu aleykum mooy farata boo ko xasee wax dog na julli ga jeex na da ngay a jóg wala nga mën a yeggale sa yeneen lawraat wa sart niyatin sartu yéene lalal axlaami fa aalam ya xiraanuhu mooy ak lëkkaleem takbiratul ihram ak kabar almal ba mu ne tamit na nga xam ne yéene julli gi nga yéene julli gi tàmbali maa ba xam nga waxoon na la yéene mooy njëkk kon booy tàmbali boo xam te ni nga war a njëkk a door a kàmbar yéene googu bokk na ci ay farataay julli nga yéene booy yéene nga tëkkale yéene gi ak kàbbar ji nga xam ne dangay ngay yéene ci sa xol rek kàbbar waaw nga xam ne dangay ngay yéene rek kàbbar kàbbar alga tàbbi ci gi kon lëkkale googu ñu koy lëkkale kon farata la loolu it lu jar a bàyyi xel la lëkkale yéene gi ak kàbbar gi ñi nga yéene ak ngay waxe allahu akbar dañuy duggalante kon loolu ca farata yi la bokk abdul faraid lim faataya hunantaha fileem maam mooy jeex na ala ma ca ka nga xam ne xad xakaa nettali ko al aqdari yu al aqdari alxaawi kay aji làq alxulaa kawe wala nga ne alxaawi alxulaa kay aji làq ak kawe kon loolu mooy fukk ak ñent yi nga xam te ni mooy faratay yi nga xam te ni moom la abdurahman al aqdari yi andi ci laqdar yi moom la seen tubaa andiwaat ci jawharu nafis moo tax mu lay wax ne lam andi rek moom laa andi waaw yéene kàbbaru almal ak taxawaayu kàbbar jàng faatiha ak taxawaayu jàng faatiha rokon ak ub siggéen sujjóot ak siggéen yéene roy ci ilimaan dal yemoo silman toogaayu silman kon yooyu mooy faatiha yi kon jàng faatiha ga tamit nañuy bàyyi xel ne ci ngiru imam malik bu ñu la jàng faatiha farata la ci julli dañoo jàpp ne yow miy jàng yow dong la maanaam yow miy julli yow dong bu dee ki nga xam day julli moom dong faati faatiha la ci moom bu ko bàyyee julli nga yàpp waaye bu dee nag ku ñuy jiite la waaw bu dee dañ lay jiite boobaa jàng faatiha ci yow ndax bu dee ci ngir imam malik bu ñu lay jiite bu nit ki jàng faatiha yow da ngay déglu bu koy jàng ci kaw ngay dégg dangay déglu ñàng mi bu dee da koy jàng suuf nag nga jàng sa faatiha te teewut bu soo bu faatixaan jàllee ba mu rukkoo sa faatixa jeexut da ngay sëgg ànd ak moom kon kooku faatixa du farata ci ki ñuy jiite kon kii julli moom dong wala imaam ñooñu la faatixa nekk farata ci ñoom kon loolu di jara bàyyi xel la kon loolu mooy faratay julli moom lañ ko limee buñ jaar kon yàlla nañ suñu borom defal dégg ak topp defal ñu njariñal julli ak la ca aju lépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Seexuna Ahmadul Xadim ñu ngi ñaan suñu borom defal ñu dégg ak topp taxawuñu mooy ñu gudd fan wér xéwal yu bari wërsëg bari te barkeel xol yu sell ci diine islaam kon ñu ngi siyaare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm rawatina ñi teewlu jataay bi fu ñu mën di toll ñaan suñu borom defal leen dégg ak topp defal leen tawfiix ak jàmm ak mujj bu rafet in uriidu illa al islaaha ma stataxt wa ma tawfiiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Amen.